jaajëfatee jaajëfatee sama gaay yi man la Mister Shake ngeen baal ma corona oblige foog ma sol masque mais tey dama ñëw pour wax ci soxu bébé sàcc woyu jàmbur ba pare ëpp ko làmmiñ di ko ci tegal ay xas Abiba nii la fi defoon moom tamit sàcc woyu jàmbur woy bi ñuy wax olala ba pare jàpp waa ji di ko xas tegal ko ci ay xas

di dal ci Wally Seck ndax moom nee na Wally Seck li mu ko diggoon wax ko ne daf koy euh, dugal ramdaan Wally Seck n'a pas respecté sa parole mais man li ma bëgg wax mooy Sokh Bébé dafa am benn woy bu neex bu mu jël woy bi mu ngi tudd maa ngi dee nekkate woy bi moom moomu ko woy ji woyu jàmbur la jël daal di woy dem 2STV yi am fa euh, audience woy fa woy bu neex

man man sant bien. sama soxna tudd soxna mom mu tudd soxna kon yag nako ko estimer xam nga xalé bu meuna way une voix naturelle meuna way mais nak problème bi moy ah xalé yi léegi jël sen bop def sen bop ay vedette te eggaguñu yenn niveau yi Sénégal amuguñu vedette ci xalé yu meuna way à part now United xam nga la moy vedette nga way am ay fans ba paré am ci xaalis mam diara United now United y a bokk petit mais moom xëy raw na est xëy na la yàlla tudd wërsëgam mu egg fu egg di am ay millions noonu la succès artiste léegi mooy surtout nga am ci xaalis mais yow soxna soxu bébé man vraiment xale bi dama ko mais tey moom damay ñëw dal ci kawam ndax li nga def du yoon parce que nit tamit da ngay wax dëgg doo jël wayu jàmbur way bi benn gaañ bu wax papi ñun papi papi man papi way wayam xawma en français lako way xawma lan après am benen gang bu ñu wax maestro maestro jël way bi dal di ko traduire en wolof traduction bu neex mais yow nga wo maestro wala bok sa manager xawma kan moko wo woo wax ko ne da nga bëgg euh, euh, def way bi mu ne la xaaral parce que dafa guma ci clip yow si suba si nga génn way bi ba paré ni ko wayé non nga ko wayé mais da ngay assumer da ngay assumer mais bu doo fi nek di inventer di wax non non dafa tomber ñun nuñ ko traduire ak moom nuñ ko traduire dafa nduroo exactement loolu fan nga fan la mës am fan nga mës a gis benn way wala benn texte ñaari nit traduire ko mu nduroo exactement maa ngi dee bi way bu neex la nga am ci ay vues yu bëri mais da nga obligé dindi waaw parce que gars yi dañ ne la papi dafa la dafa la woo dal sa kaw ne la da nga koy dindi par force boo ko dindilul woon da lay booleeg YouTube te boobaa mën nga ci am problème ñu ñu dindi sa chaîne bàyyi leen sàcc bi bàyyi leen sàcc yëfu c'est vrai que ñii ngeen di jël seen way kenn xamu leen man dama xam kan mooy papi papi xaw ma ko de recherche naa ko recherche naa ko ci inter ci internet bi ba léegi xaw ma ko may wax mu naan non non xaw ma ne papi sénégalais la loolu nan la mën nekkee nan ngay jëlee wayu jàmbur te doo def recherche moom Wally Seck fii la jëloon wayu euh, ta euh, tafa jaara euh, bi dafa naa jaara bi la tudd xaw ma tafa jaara bi wayam boobu impossible love mais def ci way bu neex def ci clip bu neex mais Wally Seck moins lu bon bon way na Tafa Jaara bi ci biir woy bi xam nga et sax loolu honneur la Wally Seck Youssou Ndour ku ñu reprendre sa way dañ lay defal promotion nañu waxante dëgg soxbee bi sax mën nañu wax ne dafa defal promotion papi ak maestro waaye li mu li fi mu juumee mooy mu ne traduction bi moom ni mu ko ni mu ko defee sàcc ko daal ni mu traduire ak ni waa ji traduire dafa tombe loolu mënul nekk xale yi dañuy jël seen bopp def seen bopp ay diva def seen bopp ay vedette di xeeb nit ñi may wax mu naan non non ko kele moko wo xawma xaw di patati patata sama manager moko wo xawma sama kan moko wo ba pare di wax nan ah man de mi ngi may wo bi may woo waxul lol dafa ne amul problème kon nak bu génnee wax lenen ci mom la xalé yi elles ont la grosse tête yeen do len ay vedette demagu len fenn gis nga li motax yalla di indi ay corona musicien am problème nga gis géwél yi di génn di kaas di wax lekkatuñu nanu parce que musicien yu bari dañu jël seen bop def seen bop ay vedette man musicien la damay def musique xam nga génn na lu mat 40 son limay bind yeen bindu ko même maestro bi nga sàcc wayam boo dégloo way bi daf xam ne kii bindkat la mais demal ci moom nga wax ko mu bindal la way comme yéen da ngeen di am entourage te ñu ñi leen entouré mënuñu defar biit ah ñu leen di entouré mënuñu bind woy mais mais ut leen ñu mel ni ñun ñoo xam ne dinañ leen bindal way wala boog ku mel ne maestro mu bindal la way mais doo sàcc ndey ngeen baal ma wayu jàmbur ba pare di ko comme Abiba mu def jàpp waa ji di ko wax ay olala oh oh ñëpp la ah soxo bébé nekk fi di wax Ah, lu mu tuddati ni ma ko traduire ak moom ni mu ko traduire benn la c'est pas vrai loolu du nekk gis nga nit da ngay wax dëgg am nga talent yow li nga am ci musique bi seen morom amuñu ko way nga fi wayu Macky Sall ma génn fi vidéo di la tagg di la tagg bokk naa ci ñu la defal promotion boobu billaahi bokk naa ci ñu la defal promotion nekk numéro un ah temps yooyu la gén yaa yaa naa maar génne saay-saay ma defal ci promotion bu bëri ak ñeneen nga mën a way am am boîte Macky Sall xaw ma Marème Fall yëkkati xaw ma deux millions yëkkati xaw ma daal di la ko jox kon yow li nga lekk ci musique bi ñu bëri lekk da ngay modesté nak di dal Wally sek ah loolu boko defé defee ci yow Wally sek yow lan ngay bëggé nek bok bok ci ramadan Wally sek da ngay dem ci Wally sek di aw wala comme ki numuy def ñum soir nek ci yusu ndur di aw ila yow mais xalé da ngay am fulla am nga talent dama jëm nga ut sa orchestre nek waaw mais nek fi di dal Wally sek Wally sek xeyna may na la promotion yëgal la ci comprendre xëy na dem na ba ci biir peut-être euh, euh, changé na ab mais bàyyil mu sedd bàyyil mu sedd mais nekk fii di di bëgg indi sa bopp ay ennemi ah di dal Wally Seck di dal Maestro di dal Papi bu yàggee da ngay gaare bu ñu jógee foofu ñu dem ci Bambali sekk tamit loolu mooy problème am Bambali Seck dafa waxam dafa commencé bëri xale bi booy bu mën a way la way na fi benn woyu Thione Seck ah mu mel ne Thione Seck moo ko way Thione Seck daf ko estimé dégg naa sax yaayu Wally euh, temps yi rek na ko fi dafa teg bët Bambali Seck Bambali Seck moo la ëpp succès ndax moom lu bon bon def na grand théâtre est-ce que defu ko fois yow est que def nga euh, grand théâtre Bambali est-ce que def nga grand théâtre defoo grand théâtre defoo sax Sorano mais yow dafa mel na nga jël booy bi teg ko bët parce que Djidji Boubs moom la invité woon xaw ma 31 décembre yow invité wuñu la patati patata booy bi moo la ëpp succès mi ngi am ay ay son ah di am ay ay millions de vues léegi yow nga ne benn son bu Bambali Seck way yow yaa ko moomoon waa Debes ñoom ñoo ko sàcc daal di la daal ko jox Bambal Seck alors que Debes ñoom ñooy bindu seen son di la jël pour nga wayu son loolu la ñuy wax témoin nekkate yow li ngay nekk studio di leen wayal son yi si ñoom li ñu wax yow yaa ngi enregistré way bi dem ba ci biir nga génn ko ne yaa ko moom ñu ngi ni génn nga miir naa te miir naa bi waa Debes ñoom dañ ne Wally Seck sax lañ ko buggoon bindal way boobu way bu neex la déglu naa ko léegi def nga ci genre clip am nga un million de vues mais est-ce est-ce que jàng ñun li wax rek moy boy dem leen ngeen jobi dem leen ngeen jobi te ngeen bàyyi ah nek fi di dalante seen biir ba Mandiaye sak di am mariage du ko yegal nga nek fi di wax patati patata mais lolu vraiment li motax yalla di wacce corona musiciens yi sonn musique bi du tous musique bi yow boo koy def ngeen def ko passion wala bok, ngeen xamne dafa metti waaw gis nga corona ngi ni ah, boîte de nuit amatul xawaare amatul ngénte amatul mariage amatul djewali genn di kaas li mo koy indi musicien da ngay da ngay da ngay modest da ngay modest yalla bu la may succès da ngay modest ndax ni la ko may non la koy nango li motax nga jek jek ngi jek jek gis musicien jek jek mel ne dafa am ay dépression ndjay ko pat fi la genn mom tamit di wax ne dañ ko liggéey ak patati patata dafa am ay dépression parce que amna succès bo xamné bo démé ba am ko ko ah mën nga dem ba après bi yow d'ici 5 ans xalé yi ngeen di gis yépp xalé yi ngeen di gis yépp mun nañ si jógee daal di daal am ay dépression ndax gis nga boo tàmmee siw jékki-jékki siwultuloo ah ay ay Sokoné yëpp nekk seen petit am na talent mais lan la fi defagum sur le plan euh, musical guñ fi dara fii Mame Diarra rek moo fi def dara kon ñuy wax xale yi mooy bu yóbbu ngeen dem uti beneen liggéey man maa ngi nii génne naa lu mat 40 son waaye ku ko ya yaakaar rek ci musique bi doo doo ci dund de bu yàlla defee ne nag da nga am benn son international mu génn kooku sa wërsëg la mais ut leen seen liggéey ut leen leneen li ngeen def te bañ a jël lépp daal di ko basé ci musique bi man daal loolu mooy sama euh, conseil bi leen jox fi may jeexale rek mooy wax tuuti ci Thione Seck comme ci famille Thione lañ nekk Thione Seck moom tamit vraiment génne album international ñëpp di ko xaar waxoon naa Thione Seck man yàgg naa génne ay vidéo Thione Seck génneel sa album yi gaawal génn sa album yi gaawal génne sa album mu téye ko rek téye ko téye ko ba léegi corona ngi nii corona ngi ñuy daal di kenn talatul musique waaw Thione Seck nag ñu ngi koy gis muy génne tout sera boobu waxoon naa la way bu neex la waxoon naa leen ko mais gis nga daf ko génne ñu gis mu génne ay version ak ay malien nag ak ay guinéen nag lu ma xamul mais Thione Seck vraiment euh, am na ay sénégalais yoo xam ne woyal na la ci way bi ku mel ne Ami Collé ni mu woyee tout sera bi vraiment man gis naa ne way boo génne woon version Ami Ami Collé Dieng nga defal ko ci clip moom kese nga def ko nga bañ ci génn nga defal euh, moom kese noonu ngay defee promotion sa album parce que yow euh, da nga ne da ngay da ngay jàppale euh, artistes yëpp quoi waaw man mii sax nga di gis coon sax invité woon nañu ci album traduire naa ko en xam nga mais man xam nga man wax katu dëgg laa waaw coon sama waay la ku baax la ndax ba ma nekkee Sénégal comme ni nga ko waxee doon jaay sama musique sama matériel musique wër fu ne mënu ko jaay coon sax moo moo ko jënd ci man cinq millions kon man du ma ko du ko dal mais nak sumay def critique musicale koku chon sama xarit la mais sumay def critique damay objectif coon albumum bobu meuna am disque d'or wala disque sax platine parce que africain yep la ci way mais nak pour man ni koy nim koy guenné ni baxul mais Wally Seck sax dafa way na ci waroon na génn clip bo xamné ne Wally da ci génn comprendre mais en tout cas ñu koy wax ñu koy wax bon courage comprendre ay wayu neex ci nek Yoro nday amna bu mu wax euh, rapace nim ko waye neexna Ami collégien nim mu waye euh ci sera bi jàll na kon coon ñu ngi koy encouragé mais en tout cas tey loolu moo doon zapping bi pour wax leen rek ne ah, ñu ngi leen di suivre la actualité bi gis nañ ne temps yi jaamaan booy jaamaan express vraiment temps yi moom mi ngi tàngal Sénégal waaw booy bi ay il est original fi mu ko jàpp foofu la waaw ñu ngi suivre musique bi rappeurs yi gë jëm di euh, gisatuma leen ñu wax mais daal ñu ngi leen koy suivre incha allah lép lu ci am rek dinañ leen ko wax jaajëf.